ma dalloo ba ma jàng euh, defe naa ne man sama njàng sax am naa vingt deux ans ñaar fukki at ak ñaar waaw euh, bi ma xëyee suma kër waajur ba bi may dellu si vingt deux ans la ñaar fukki at la ak ñaar yoo xam ne nii bu ma xamee dara kii ma yabaloon ma génn jur ma génn ma ci juróom-ñaari at xam rek la bëggoon ma def ko te booba am naa trente ans wala vingt neuf ans bi may dellu si waaw kon eh, fi ma jaarale woon ak gedd gi ñu ma geddoon ngir bëgg ma xam dara walla ma man dara loolu moo tax ma xool ko muy lu metti nag loo xam ne nii wax naa ko ci biir téere bi ku ko liir da ko gis eh, mu sant Mbàkke bii am na ay jamono bëgguma ko sant ndax fi ñu ma jaarale metti ma bëggoon a sant naneen ba tollook ñaneen ñi waaw kon puukarewuma sant bi da bariyaana ko ko sant tey bu amul fajug aajo coono lay coono ci lay dund lay tee nga dund ci coono nag mooy fi ñu jaarale ñenn ñi bañ jàll sëñ Tuubaa jaar ci ba andil nu ndam li mun a andil waaye loolu taxu taxul nit ki war a tëdd nelaw dafa war a tax mooy sëñ bi kat bokkul ak nun naam mi lu baax rek la bëggoon te lu baax du fi jóg loo ca mën a am lu néew-néew. nga nga nga nga boole ko ci yóbbalub sëñ ba waaw sëñ bi sax li nu gëm mooy amul luñ koy dolli waaye nag bu sañoon ñëpp baax ñi ànd ak ñi ànd ak moom baax ndax ba addaxaltu nafsi wa jàmmi ali fi jay bi af lilil wara silfadili boo déggee kenn ki yuuxu ne sëñ bi tàbbal na ci jiba jiba mooy lii jay bi mooy lii loolu ku ko dégg rek nax nga sa bopp ku jub lay wax ku jaar fi sëñ bi jaaroon moo tax mu mën laa jël dugal la ci jibeem mais sëñ bi xam nga ne du percal bu mel ni euh, wala bassin bu mel ni du ci dugal ak tiir mu koy yëbbal wala daa lu set wecc kayit bu weex tàll la ci teg woo xam ne ni du ko yëbbal bu doon xaalis sax bu ko yëbbal du ko ci dugal kon loolu moo tax nag ma xool ne eh, man fiñ ma jaarloo baax na metti na nag lool waaw metti mettit wa foo ko takk rek looloo tax ma def yi mettit wi ma dund kook sama waajur muy koo xam ne nii ni ñu waxee ci bokk gi gis nga ni bokk gi demee waaw sunu waajur euh, euh, waajuram wu jigéen ak euh, sama ki jur sama waajur wu jigéen ak waajuram wu jigéen ñoo bokk benn baay waaw kon bu ma defee dara bañuma ma dafa waxoon ne rek bu defee li ma ko wax ma bàyyee ko li ma li ma yor bu ko defut ma ma ma ma ma jàpp ci yàlla ma fen da bi may ñëw kenn laa bi may dellu kenn la loolu sax bu yàggut la ma ko sëñ Moussa mu sëñ Moustapha Basir nettali ne sëñ Abdoul Akram moo ko waxoon waaye man daal bi may jënd dama doon jënd ndax waajur bitig la may jënd mu metti lool may dem nag nga xam ne sama alali àdduna jëpp ak li ma amoon tollut ci toogu bii ma toog bi may ñibbisi daalewu dara nekk ci situation boobu ba noppi déggoo gu ma ak moom benn déggoo bi ma ma continuer ak moom eh, di të di ko tërbiyewu ginnaaw bu ma jógee ci Cheikh Abdoul Ahad ak sëñ taxa jàng ba noppi ci sëñ Abibu eh, mu mu tërbiye ma tarxi ak tasfiya dafa xaw a xóot xaw ma àgg naa fi mu déet waaye teewul daal dem naa bañ ne ma kaay ñibbi mel na ne li nga bëggoon am nga ko loolu nag bi ma ko amee ak fi ma jaar moo xoolaat sama gannaaw ne ah gone yi bu leen bàyyi rek. ñu xool ne ah euh, oto yi étage yi mbàkke yi morit yi niñ nu bëggee eh, ku ci jëndu perte loolu moo tax ma ne ndax lépp fi ma jaar te man fi mu ne li ma jaaree ba sant yàlla kenn laa ñëwut nag fi ma toll ku woon laa waaye bi ma agsee ba pay gi agsi moom eh, ngor ngor gi ak li nu sëñ bi jàngal moo ma nargan ci mbir mi ma sog a tey laa sog a soxla kilifa moo tax sëñ Muntaxa mii doon sama kilifa waaye da doon dem di di topp ci moom ci tàmbali Cheikh Abdou ba ci moom mooy wut kilifa tey jii nga ma gisee nii nag nga xam ne ne soxla ma ndimbalal ku dul yàlla tey laa soxla gën a doon murit gën a soxlaa am ku ma yilif waaw ñaanu ma yendu benn jant ma xool nag téere bi ma jaar jaar jaar yi ay ay ay point la ci rek ma jaar ci bi ma ci jaaree ak ku ma xam ak résultat bi ma jaar jaar bi indil moom euh, dafa dafa neex ci sama xol ba nga xam ne damay fàttaliku yu metti yooyu démb waaw euh, ndax mm, waxuma la ni ñu koy xoole nii ci te ku ne xam dund na loolu waxuma nit koo xam ne nii tey mm, soxla woo sax yàpp daanaka ndax euh, sëñ Tuubaa dégg nga ko lam yanhu nii sajurun wala waxidu waxum mari lal jinaan heedu daanaka suñ bis bu na feet la suñ bisu tey bi billaay bu subaa koy dàq loolu sëñ Touba moo nu ko liggéeyal waaye am nay jamono bu la taalaale xeeñee sax loxo bi doo ko raxas ngir di ko fóon léeg-léeg rek ah, di ci bëgg jaar-jaar yooyu nag boo ci jaaree eh, didim lu ne nga jaar ci fu ne nga jaar ci tumuraanke ba agsi fii boo agsee fii war nga xoolaat sa gannaaw waxaat gone yi ne leen ah yëf yi du du sant de déedéet du sant jëf la jëf jooju nag bi nga xamee ne def nañ ko ba àgg fenn fi ba nun suñ kilifa da ki ma doon jàngal noonu ku bari xam-xam la bàyyi ma doon jàngal da nga ko eh, ni ma leen doon tarbiye woo ñi may jàngal jàngale naa ci képp ku gis sa musée wala sa ustaas def ko moroom doo dem doo am barke xaw ma dara mais teewul def fex naa ba def téere rek adduna du ko fàtte mais barkeelu njàng ma jombul moo may loolu ginnaaw bu ma jëlee ci sama waajur loolu laa bëggoon xale yi ma tënk leen wan leen jëratul wuti fenn dara ci naar yi wala nga jëli ko ci ci beneen réew bul indi benn benn aada na nga jël aada aada yi dëkk bii njàngaleem sëñ Touba mi njàngaleem mag ñi ak fu fi mag magee te tam kilifa ñu ñu roy ci ñooñu buñ ci royee jombul fi ma àgg kës néew gone yi dañ fa àgg. Eh, ci téere bi boo xoolee rek sëñ Touba li muy wax ci xam-xam. akub yar day day jar eh, eh, mboolem képp koy jàng la mu am ci xam mu wut luko lu ko duubal ci ñaari yoon ci yar kasaratul xilmi bi xayri adabi jaalibatun ilal hasa wa taabi loolu lay indil nit nit dafa war a jàng waaye na amub yar boo amee yar sax boo amul xam yar bi dana la muural ñàkk xam-xam daanaka moom a ko yar bi moom a indil lépp jombul loolu kon kuy jàng ku ne dafa war a dem fa mu war a àgg jàngit dëpp baaxu ci ci gone yi nun ñii tey bu yàlla dogaloon dëppunu walla mm, wala ñu jaar ci beneen géej jombul bu dee wàllu àdduna kenn du ko kondir banu waaye teewul xam nañ ko nag waaye li nu yàlla defal ci njàng moom ak yar boobu moo gën àdduna moom àllaaxira nag mi ngi ci beneen affaire la waaye li ba àdduna soxla eh, daanaka duñ ko soxla ndax dégg nga ma ci média ba tay ma waxum ministère na ko sa place bi nga toog bi ma toog man xoolu ko ah sama toog bi ak sama tumuranke geeg fi ma jaar ci daara jeeg tilim jaag yëf yi ak sagar ya ak jéng yi ak dóor yi ak yëpp faalewut jataayu ministère mais boo ngeen médiatiser ko ministère yëpp dégg ko man xooluma ministère man yar bi ma sëñ Touba yar ak liggéey bi sëñ Touba liggéey moom ci laa toog moo tax ma am li ma am ginnaaw yàlla moo tax ma def téere bi ngir bëgg gone yi li wacci lay ñu yamaat ci seeni waajur yamaat ci yarum mag ñi yamaat ci li nu sëñ Touba andil noonu te duñ ci génn mukk buñ ci yamee topp sa ndey ak sa baay topp say mag bañ a xeeb kenn eh, xeebante mënta téye eh, ab dëkk waxuma la ab tariixa waxuma la ab askan waxuma la ak famille bu ñu yëgantee nun ñëpp loolu lépp ngi ci biir téere bi alaaxa yi ma am ak samay waajur alaaxa yi ma am ak président de la république alaaxa yi ma samay bokk samay mag samay rak alaax yooyu yëpp luñ ñu jàngal la nga xam ne ni ko ni ko ni ko sama doom ji waxee ci kii bi loolu mooy li nga xam ne moo sabab téere bi ñu jàngale mu ne ngi ci nag ndax jàngal naa ci lu bari bul defee ne dama toog nii rek tërbiyee naa ay nit yu bari ay téeméeri téeméer ñu dem ñenn ñi métier yu bari lañ jëlee maa leen ko jàngal architecte la boo ko dee seet dama rëdd plan tabax jumaa yii nga gis nii kenn rëddaluma ko maa ko rëddal sama bopp samay kër yi bopp ay kër la yoo xam ne nii ñëw ma kenn ci kër yooyu yëpp maa ko defal sama bopp dong yi jóge ci man am naa donga yi ne fii tey mën nañoo tabax tabax bi te lépp maa leen ko jàngal ferrailleur ah, xeetu xeetu liggéey bu ne jàngal nañ ko dong yi moo tax génn ci daaray tëdd bi jooju xam nga danga nga daa dégg daara ju amul daag yooyu mais daara yi Sëñ Tuubaa dafa am daa ba noppi amaan métier moo xam ne boo ci jógee doo doo ku ma ku ma tërbee wàcce la man boo amul boo amul dépasse ci ci ëllëg sa ci yow la ndax def naa ci yow lu tax nga mën a am dépasse waaw loolu daal te it defuma kenn dof nag waaw ponki yi laa la indil tënku ci digal la ko nga di ko def waaw ku ku jóge ci man doonub dof yaa ko teg sa bopp waaw moom laa bëgg maa ngi ci waxtaan ak borom xam-xam yi ñu defal ma ko ci français euh, anglais ak yeneen yeneen yeneen yeneen mbind diir bi nag guddut lool moom ndax lu ma lu ma mokkal la rek bind nañu ko biñ ko bindee ba noppi ma toppalu ko sëñ Mbàkke Abdourahmane wéral ko ñépp dëppoo ci ak wéralam ma yóbbu ko Maroc pour fonk li ma wax xaalis bi moo gën a bari mënoon naa ko moolu fii ci ay trois cent mille wala trois cent cinquante mille te ay millions laa ci def ñu mool ko loolu laa ci jublu pour njàng mi gën a dër rek képp ku ko soxla nag te te am alaaxa ak euh, njaboot gi nga xam ne ñoo ko moolu bu boobaa mën naa boo ko soxlaa ñu jaay la ko jombul waaye man daal li ma ci ñàkk def ko ci jubluwuma ci woon xaalis wala ma di ko ci wut pay gi ma ci am daal ku ko jàng ba mel ni ma def mel boo xeme mee sama melakaan waaw mën na am nga mel noonu loolu daal moo ciy sama pay waaye wutuma ci xaalis